mu nekk benn association boo xam ne dafa juddu fii ci Mbadakhoune juddu pour lan juddu pour tëkkale njàng ak euh, développement njàng ak développement ci gàttal mooy éducation et développement euh, mu nekk loo xam ne dara mënul dem bàyyi lenn ci loolu ñu tàmbali ci pour am fu ñu war tambaleek fu ñu jëm naam bañ tàmbalee yàgg na ko Cheikh Mamadou Ghali waxee ci gannaaw parce que 2013 ba léegi ci kon tey dafa nekk bunt boo xam ne dañoo teg classement pour jublu ci liggéey njaan liggéey ñu pare jublu pour liggéey liggéey boo xam ne gannaaw liggéey yooyu yëpp fii dana nekk chaise boo xam ne fu waaye jógee ci xam-xam ci njàng ci ci ci góorgóorlu ci lu manti doon rek dañuy mën a jajee fii mu nekk lu lieu bu ñu composé boo xam ne bu ñu fi dajee ku ci nekk da nga xam li la war ak li liy jëf sa kanam ku nekk da nga xam yaay kan ak sa morom mooy kan ku nekk da xam Ah, lan lan la lan la Sénégal di xaar ci yow lan la sa gox di xaar ci yow lan la sa réew di xaar ci yow lan la say mbokk di xaar ci te loolu du dara lu dul njub ak mbaax ak sell du dara lu dul lu jàng am xam-xam parce que xam-xam mooy lay def nit mooy def nga def nit ñi nit. taxawaay bi nii li ko waral mooy dañ doon teg xeer bi nii pour tàmbali liggéey boo xam ne dañ fi teg benn institut islamique boo xam ne dana jëmmal. suñ liggéey ci biti yépp waaye dana jëmal suñ liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci dëkk bi si naat table rek mën nañ wax ne lu mu ndaw ndaw dana mat un hectare et demi ci gàttal ci lu ma foog parce que ay terrain yuñ boolante la ay terrain yuñ boolante la parce que euh, du tool bi yëpp parce que mënuñu récupérer tool bi yëpp waaye dañ ci récupérer maximum 12 parcelles yoo xam ne dana danañ liñ bëgg yëpp dana ko mat terrain football bi dana ci xaj logement bi dana fi xaj ba pare ah, bureau yi programmé pour salle de conférence salle de réunion salle de tente hôpital bo xam xalé yi ku ci amé tawat ak yoy da ci mën dem jot ñu ser la consulter la xam ci li nga nek yoy yep dana ci nek lool motax ñu jël ci après 12 près douze places yoo xam ne foog naa su ma la sur 25 cinq. bi liko yëkëti moy gannaaw jang ak jangalé formation formation ci lan xalé bi wala doom adam bi. yàlla moo ñu bind at aamaxu mi joo am nu mu xaw fi da war a lekk da ngaa war a naan kon am na leneen lu taxaw sa kanam pour mooy lan mooy gannaaw bi nga nekkee xale juddu ci njàng xam boo ci boolee métier dana la may jom ba nga xam ne bu ëllëgee am na fooy toll soo xamee ne man mi laal naa ci jàng mënul dem da nga màcc benn xam boo xam ne boo ci génnee da nga nekk njëriñ ci sa famille danga nekk njëriñ ci sa xeet waaye danga nga nekk développement ci sa gox loolu noonu ci la bokk muy transformation muy l'éducation muy problème mu maraîchage mbéy muy wàllu élevage muy wàll ah, mm, wàll waaw métier Yo xam dañ ko jàngal xalé yi nga xam buñ fi joggé ëlëk rek ku ci dem da nga mëna jot ci sa bop gis sa bop fo mënta nekk ci ñoo mëna dem tamit da nga mëna composer ak ñoo Je crois que c'est une euh, démarche qui va en droite ligne avec euh, la nouvelle politique euh, éducative du gouvernement du Sénégal. Parce que euh, tout le monde sait que la politique éducative du gouvernement du Sénégal actuellement tourne essentiellement vers ce qu'on appelle les, les, filières scientifiques. Les filières scientifiques, c'est pourquoi Parce que on ne peut pas, peut-être, on ne veut plus former tout simplement des littéraires, des gens qui savent peut-être lire et écrire de bons discours sans pour autant qu'ils soient en mesure de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi si un institut euh, de ce genre est vraiment euh, est en train d'être mis en place par peut-être euh, notre, notre frère Barham, vraiment c'est quelque chose à saluer. C'est quelque chose à saluer parce que c'est lié l'éducation et le développement. Parce qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans pour autant parler de la formation. Parce que euh, l'homme doit avoir une bonne éducation d'abord, mais il doit avoir une bonne formation pour pouvoir vraiment être utile pour sa communauté et pour son pays. Donc c'est vraiment une initiative à saluer. Que les dards modernes forment des citoyens modèles, des gens qui savent lire et écrire le Coran, des gens qui sont capables d'aller travailler dans l'entreprise, dans la société, hein, ou bien dans n'importe quel domaine de développement, mais au retour, ils peuvent aussi vraiment entrer dans la mosquée et diriger des prières. Je crois qu'un institut de ce genre aussi entre en droite ligne dans ce sillage-là. Donc on ne peut que remercier vraiment l'initiateur de ce, projet qui est Barham et M. le maire aussi vraiment qui a facilité tout cela. Parce que si vraiment il y avait euh, l'initiative de Barham sans pour autant qu'il y ait l'appui de M. le maire, je crois que vraiment ça, n'aura pas lieu mais di wax ne tey dañu teew ci benn ci activité wu association nous pour tous pour l'éducation et le partage te loolu dafa ëmb lepp parce que lima wax léegi moy ko ñom depuis buñu tambalé dañu jël en charge nit ci bopam mais nit euh, ay dimension yu bari la nit nekul yaram kese wax naa ko mais nit aussi li nek nit ki en réalité fay ci ay patch yu bari nga koy fekk pour motal ko ñoom bu fekkee ne dañu jël en charge nit ki ci yaramam physique am fexe ba nit kooku bu amul lu mu lekk am ko bu amul lu mu naan am ko fexe ba nit kooku su bëggee faju faju fexe ba nit kooku bu bëggee jàng-jàng mais fexe ba nit kooku su bëggee xam nu ñuy liggéeyee mu xam ko mais en ce moment bu ñu paree ci nit kooku dañuy defar nit bu bu mat bon nit ku mat yombul mais loolu mooy objectif bi alors pour defar nit ku mat kooku nag faaw te loolu nag la ñu nekk di def dañuy jàngale dañuy yar dañuy dundal mais dañuy former pour que nit kooku bu paree nekk benn citoyen modèle boo xam ne mën na def dara pour suqali boppam d'abord mais pour suqali ay famille am mais pour suqali dëkkam mais pour suqali réewam loolu daal mooy seen mission te ci loolu lañ leen pare gunge.